أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان وجاد بالصفاء والأمان بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم خاد للأمان الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زبي نوال الوالي bokki yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi nuyu bokk jullit yépp te di leen ziyaara bu baax ci réew mi ak bitim réew mboolem gox yi fasantikoo yi di jiital ci nuyu bi ak ziyaar bi kilifa diine yi ka nekk ca bopp di xalifatul am di taifatul muridiya Cheikh Mahamadul Muntaxa ak jabootam gi gim jaboote yépp di nuyu tarixatu tijaaniya sëriñ Babacar Sy Mansour ak jaboot gi mu jaboote yépp di dem balaa di nuyu xalifa ba si Abdoulahi Thiaw ak jaboot gi mu jaboote yépp noonu lay nuyoo ñaseen bàyyiwul kenn képp ko am cër ci lislaam rek lay nuyu te di la jox wàccuwaay bi yàlla ci yow di nuyu kilifa aada yi jiital ko ci njiitum réew mi ak ñi topp ci ginnaawam yépp di ñaan suñu borom Sénégal jàmm yàgg fi loolu te fi mbokk yi noo ngi nuyu soppe sëriñ bi ak taalibe yi yi nga xam ñu ngi koy topp jamono bu nekk ci internet bi di safoo jëmmam di jëriñoo ay kàddoom te di ko taataan euh, rawatina waa de Nasrou media TV ak képp koo xam ne yaa ngi topp bi foo mën a nekk rek ci réew mi ak bitim réew yépp yaatu na ci àdduna bi ñoo ngi nuyu baax di la xam naa ni émission bi di ngeen ci bég loolu te kontaan ci ndax namoon ngeen sëriñ bi daanaka lu jiitu koor gi ba tey gëj ngeen koo gis devant la caméra sëñ bi ne woon ci wàccaayu koor gi biir koor gi yi doon def alfulku mason yooyu gi mel noonu bi mu jàll yi tukki bi gàtt rek mu nekkoon ci suñ borom def mu siwaat ci yéen ci jotaay yu am solo yi nga xam ni mën leen koo ñàkk benn yoon ci fii ji nasru minallahi wa fatahun xaribun wa basiril muminin ñi def ak yéen alarba bu jot seen émission waxtaanu diine di ci indi ay laabiire yu yaatoo yaato yaato ci mboolem fànn diine yi ngeen di ko taataan di ko jariñoo kon tey jii seen émission waxtaanu diine ginnaaw bu ñu leen nuyoo yéen soppee sëriñ bi te di leen masaw mboolem coono yu fi jaar te di leen bég bégee bu baax a baax ci commentaire yi ngeen di def ak ñaan yépp seen émission tey ñi ngi leen ñëwal ci turu yàlla bi ñuy wax xayu xayum insha allahu rabbi ñu bàyyi sëriñ bi nuyoo ak yéen ñu présenté leen aaya bi bu soobee yàlla sëriñ bi kon bisimilah. alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Cheikhul Xadim bu ñu jiitale sant yàlla suñu borom tabaarakta wa taala it. Mm-hmm. Ya jalal wal ikram te julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam julli goo xam ne laa nihaaya hmm. xanaa ñu def rek comme aadama sant ko te wax alhamdulillahi rabbil alamin hmm. alhamdulillahi alwahidul hmm. alhamdulillahi xaqa xamdihi alhamdulillahi suma salaatu wa salaam ala sayyidina wa mawlana Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Seexul Xadim ñu nuyu mbooleem xariti Nasrul Média TV mm-hmm. li ñoo wax auditeur ak li ñoo tuddee auditrice dans le monde entier di delsi ci seen deuxième numéro mooy deuxième jataay mm-hmm. ginnaaw bu weeru koor wi jàllee mm-hmm. ndax pause bi ñu amoon mm-hmm. eh, tuuti récupération la woon rek pour defaraat yaram yi ak baat yi mm-hmm. ba mën a delsi ci ñoom ngir liñ ko yittewoo ñu siyaare leen ñoom ñëpp ni nga ko waxee te ñaana leen jàmm ju ànd ak tawféex ak sutura eh, kilifa diine kilifa aada rawati ñi top xam-xam Cheikh Khadim Nasrou media TV bari na ay xarit yo xamni ni toujours ñu ngi wax ci ñun seen yitté woku seen jang ci di ñu topp di ko bégg nag booy tur yalla ba ñew ci Nasrou media TV yalla mën na la baaxee nga am ci lo sukkandiko waye bo bëggee dégg alcorane itam yàlla mën na laa baaxee ba fi ñëwee nga dégg ci loo mën a jariñu mm-hmm. wala ku libéral mm-hmm. boo duggee ci Nasrou Média TV na koy am mm-hmm. waaye li ñuy tudde solidaire boo duggee ci biir Nasrou Média TV da nga ko fa fekk ndax dafay joxe xam-xam waaye dafay tegtale gépp baax dafay ginde itam waaye dafay éduquer yàlla nañ ko jariñoo ñun ñëpp allahumma amin kon bu ñu demee siyaar xar yi nekk Amérique ak li ko wër dem Union européenne ak li Arabie saoudite xar ya fa nekk yëpp Afrique aussi ak li ba dugg biir Sénégal ñëw ci réew mi kilifa diine kilifa aada yi ñuy digle yëpp ci fukki émission yi ak ñeent rawatina këri diine yi surtout Touba. nga xam ne soppe yi bari nañ fa lool. Daaru Musti ndeysaan. man yi maa ngi jokk kilifa yu bari. Tiwaawoon gii Thiénaba. ba Dakar Yoff Layeen. yal na yàlla defal ñëpp jàmm. da dem ba Kaffrine suñu mbokk daraame daraame nekk foofu fan yi ñoo ngi leen di jot. ñoom tamit ñuy wax dugg ci biir seen bi su su kaasaase yi nag. yàlla na yàlla defal leen ñoom ñëpp jàmm ak tawféex. sëñ Xaadim kon ñu ngi ñëw tey jii ci ajjuma defe naa mooy nekk le 23 hmm. mois de juin hmm. àllarba 23 mois de juin hmm. yàlla nañ ko fekkee 2022 le 23 ak bis bu mën a doon te ñu ànd ak jàmm ak tawféex ak dal di siyaare nag suñu caméraman yi fi nekk xam ne après ñoom ñoo nekk ci cabine technique yi ak gan yu tedd yi ci salle bi yëpp dajeeg ñun tey sama xadim kon. ñu ngi ñëw ci penc mi. ak sa bëgg a waxtaan diine. Mm-hmm. yal na yàlla defal na jàmm ak salaam te may nu yoon. Mm-hmm. jërëjëf kan jërëjëf kan. ñoo lay nuyu bu baax te di la ziare di la dalal yow it bu baax a baax. Mm-hmm. kon sëriñ bi dañuy jublu ci waxtaan bi rek. seen émission waxtaanu diine. tey ñu andil leen yaa xayu yaa xayum. wala xayu xayum. xayul xayum xayul xayum. léegi nag. te lu koy présenté moom xëy xëyum mooy aaya bu tedd boobu ñuy wax aayatul kursi yi ci alxuraan. moo lay wax mooy kan ñu jàngal ko sëriñ bi mu ñëw ci. bismillahi rahmani rahim. allahu laa ilaha illa hu alxayyul qayyum. الله لا إله إلا هو العي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يصفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعيتون بشيء من علمه إلا بما ساء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم بارك الله سيرين بارك الله من آية كرسي موني واخ كوي حاجه خيو دا فا ييمي خمغا نيت يون لا تروي بريسانتي و سي بير القران الكريم نين كو ديغلو بو باخ بيما جانغي ميغي سورة البقره واو Mm-hmm. boo demee ci سوره ال عمران الف لام م الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم صدق الله العظيم قدم في سورة طه وعنت الوجوه للعي القيوم وعنت الوجوه للعي القيوم وقد خاب من عمل ظلما بارك الله نيت يوي كون نيغي ديفري اسكي غيسغا الله موي تاباتولي موي رب الحسات والجبروت موي سيل جلال والاكرام melima yem bi ngay jang hmm ndekati al hayyul khayyum hmm لا تاخذه سنة ولا نوم مام حي خيوم واو نو نو ما جا شي نكتو الحي الخيوم لا تاخذه سنة ولا نوم واي له ما في السماوات وما في الارض له ما حي خيوم متي ما في السماوات وما في الارض alxayul xayuum mooy man sa lesi yasfahu indahu ila bisni alxayul xayuum yaxlamu maa bayna aydihim wa maa xalfahum sëñ xarit alxayul xayuum ndekete wala yuhiituuna bi shay'in min hilmihi ila bi ma saa ndekete alxayul xayuum moom day wasiha kursiyuhu السماوات والأرض خلال ما ما شكر سماوات والأرض ولا يؤوده من حي خيوم الحي الخيوم ولا يهده حفظهما الحي الخيوم وهو الهلي العظيم لا لا لا لا لا doon leeral. tey. moom waa ji mu لا alhayul xayum. allahu laa ilaha illa huwa alhayul xayum. nee na moom mii nga xam ne lu dund moom la alxayu alxayu mu te lu ngeen seen mu taxaw mooma laa taaxusuhu sinnatun wala nawmu moom xayul xayum mii du nelaw du noppalu du def roppoo alxayul xayum ndekete yaxlamu maa bay na ay diima maa xalfahum mooy contrôler penku ak saw ak ndeyjoor ak càmm alxayul xayoom lahu maa fi samawaati lahu maa fi samawaati wa maa fi ard lu nekk ci asamaan yi juróom-ñaar moo ko réglé lu nekk ci suufi juróom-ñaar moo ko réglé lahu maa fi samawaati wa maa fi ard alxayul xayoom man sa lesi man sa lesi yasahu inda ndekete moom mooy ram waa asamaan mooy ram waa suuf te ku fi am bat mo la ko jox ta te alhayyul xayyuum yaxlamu ma bayna aydihim moy top toli suñ kanam ak li suñ ginaaw ak li ci diggante yi wala yuhitu wala yuhitu bi sayyid min ilmihi amul lan luy taw ci kaw suuf dafay xew lu jëkk ak lu mu ak li ci digante bi lu ayul xayyuum la ilaa bi masaa daf koo soob moom hayul xayum alhayul xayum yaatuwaayam moo mhm. daj képp fenkoog sabu mhm. kursi kursiyu samawati kursi samawati lal mhm. wala yuhdi fi suhuma te al hayyul khayyum wa huwa al aliyyul asim gis nga loolu loolu loolu moom laa doon wax ni loolu rek doy na émission dëgg la xam naa ulama yi daan topp aay yi dafa doy war di ko firi ak hayyul khayyum bi ngay jàng nii nii lañ ma koy jàngal maa ngi koy doog a dégg moo xëy xëy xam nga suñu xarit bu ñu la waxee nii baatu yàllaa ngi fépp defe naa loolu lañ miin nekkati loolu wax bu yàqu la yàlla nekkul fépp loolu yéemewul yéeme na kay am na suñu saaniw yàlla newul fépp koo xam ne doo nekk en absent te doo wuute ba mm-hmm. noppi nekkoo fépp loolu lu mën mm-hmm. bi ngay jàng nii laa koy dégg mm-hmm. xam nga noo ko mën a firi fépp a nekk ci yàlla waaye yàlla nekkul fépp loolu mooy wax biir bi lépp ngi ci biiram waaw yow mii rek yow sa ginnaaw gi ci yow ne wala yaa nekk sa ginnaaw ginnaaw gi sama ginnaaw gi ne ci man daa mel ni de. waaw waaye nekkoo sa ginnaaw yow. waaw lu tax nga bëgg yàlla mu nekk ci nekk ci weneen au lieu kon loola nekk ci moom. Mm-hmm. Mm-hmm. leer na. sa kanam gi. Mm-hmm. yaa ne ci kanam. moo ne sama kanam. jeex na. kon sa kanam ne ci yow. sa ginnaaw ne ci yow. sa goos ne ci yow sa droite nekk ci yow. waaye nekkoo ci sa góosu góos de. nekkoo ci sa droite nekkoo ci sa kanam nekkoo ci sa yooyu moo nekk ci yow. kon yàlla nekkul fépp fépp a nekk ci yàlla eh. mooy walaa yuy toona bi say milil mi yàlla benn jëmm la boo xam ni waxin la nag mm-hmm. du jëm lépp a nekk ci moom mm-hmm. waaye moom nekkul ci lépp mm-hmm. bu nekkoon ci lépp dafay déplacé wu dem nekki loola comme du déplacé wu loola mooy ñëw nekk xomam moo tax ma bay na ay parce que ci kanamam la ne wa maa xalfahum parce que loolu ci moom la ne waaye yàlla nekkul ca loola loola nekk ci yàlla mooy sa jëmm jii ma waxee rek sa ginnaaw gi daal nekk ci yow waaye yow nekkoo sa ginnaaw ginnaaw yow nekk ci yow waaye nekkoo sa kanam kanam pour dégg yàlla li ma bëgg wax noonu te ñun li rek mooy yàllaa ngi fépp déedéet or que fépp nekk ci yàlla mu boot leen ji li tax yàlla wax nii yaa daawar inaa jaxalaka xalifata fil ard def naa nga nga wuutu ma mhm. mooy dafa tëgg jëm foofu lépp teg ko ci moom mhm. lépp nekk ci jëm fu jëm jëm yóbbaale ko mhm. asakun borom bi tabaraka ko taala te suñ xaar looy nekk ci moom day fekk loola ëpp la nga mën a dugg ci biir loola am de waaw fii ne bu ma waxoon ni maa ngi toog ci kaw lal bi mhm. maa ngi toog ci fauteuil bi mhm. et fekk fauteuil fauteuil bi ëpp moom ma dugg ci fauteuil bi mhm. mais su ma ëppee fauteuil bi nu may duggee ci biir eh, moom olof di wax ne garab bu la seesam bi gën a yaatu lépp kon fu mu koy teg ci kaw lépp su ko sees bi gënoon a yaatu yàlla day dugg ci biir sees bi kon yàlla xañul ci sees waxin la rek moo tax bi ngay jàng ayatul kursi maa ngi ciy nafar. Mm-hmm. alhamdulilah xëyum ndekete. Mm-hmm. yii aay yi wax bari ci moom la nekk. moom la nekk gis nga mu wax tudd ko ñetti yoon ci alxuraan waxanet lu wujuuf bu mm-hmm. demee ba jamono jot ba ñépp jaaxle. ba ñëpp tiit. ndekete lii dellu si waat nit ñi ba seen njàqaree kanam ñëw. ndekete am ay alhayyul hayyul gis nga ko. boo demee ci Al Imran. mu tudd ci juróom-ñaar fukk ak benn. soixante onze. الف لام ميم سان اونس لا لام ب 30 لام ميم ب 40 الف بن يالا لو بغا واخ سي 71 سي من بغا خامني يالا موي بور بيغا خامني امول كون ورا جامو كول موم كو جامو كول موم نياتنا بول بي ورا جامو تام موم رك موي موم الحي الخيوم الف لام الله لا اله الا هو الحي الخيوم دانجي نيو gis nga fofu boo dee da nga fay fekk mu def nombre 484 mhm. alif lam mim mhm. allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum 484 mhm. la 484 484 gis nga say xaadim pour boobu ken du ko jël juroom fukki aljuma ak ñaar ba nopi ñu lay dimbulee ti amul da ngay dimbulé kay atom yalla xam nga année bi ci wéri bir yi 52 vendredi la soo seetloo simin bu nek juromi vendredi lay am ci yenn wéri yi am ci seen bir 5 mois yo xamni juromi aljuma lay am ñeenti ajjuma bii juróomi ajjuma lay am bi ñent aljuma bo sété bu 52 bi par 7 jël bee par 4 soo ko boolee 52 aljuma la mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. lay jox. 48. mooy par 4 52 yi aljuma yi. ci bilisee 4 jox 52. mu juróom fukki aljuma ak kon mooy année. fi ne bii ma la wax ni alif lam soo ko defee benn at. dootoo dootoo ñàkk. fokk nga nga yàlla ubbi see gudd. ndax reyaayam ci lim boobu waaw lim boobu rek hmm. Hmm? Hmm. benn yéeme gis nga baatu yaa xayu yaa xayuum sëñ Xaadim boo ko seetloo daf lay jox ci arat 174 xam nga xayu yàlla ma wax ci alxuraan ni kullu shay'in xalaq na وجعلنا من الماء okay. وجعلنا من الماء كل شيء حي